Donc ce n'est pas le Premier ministre qui vous accueille aujourd'hui, c'est le président de PASTEF les Patriotes. donte yàlla def nañu dox ba ñaar yooyu am fu mu daje ci jën mais foo faut toujours ñu koy ràññee solos rencontre bi du rekk ñëw pour remercier leen walla féliciter leen souvent peut-être le terme de remerciement sax mën na bañ a approprié ndax ñun bu ñuy dugg ci politique dañoo woote patriotisme gëm suñu réew xeex ngir réew mi joxe suñu bopp ngir réew mi bañ koy door lu tuuti lañu woon ci lim daanaka ñu ne fii yëpp autour de la kenn fekkewul bañ koy door y compris ñii nga xam ne yàgg nañ ci parti bi lu tuuti woon woon ci lim matuñu woon dix personnes ñu sumb ko gëm ko tamit ñu yàlla may ñuy dox di dox di dox di wax ak sénégalais yi ay nit di ci gis seen bopp di ñëw di yokk di yokk ci mbir mi ba tey ñu am majorité ci Sénégal dañuy dellu sant yàlla waaye fàttali ni kenn ku nekk ku ñëw rejoindre projet bi rek bul musa a ba ngay ñëw du suusal bu ñu la fi diggoon du mburaake bu ñu la fi diggoon te mosuñu wax kenn ñëw leen ñu dem xeex bu ñu gañee daal di séddoo réew mi suñu discours saa toujours été constant patriotisme la woote te patriotisme nag li xew yëpp am na solo waaye tey la patriotisme di commencé xam ngeen bi yonent bi alayhi salaam ne jóge nañ ci jihaad bu ndaw ña ngay dem ci jihaad bu mag ñëpp dañ ne woon kii li muy wax ni nit ñi xeex fii ay xare ay bakkan rot fii ay nit gaañu fi nee na boobu mooy yoon bu ndaw bi parce que bi mu demee ba yàlla jox ko léegi lenge yi boobu la xam ni défi bi foofu la commencé la ca des yëpp échauffement woon défi baa ngi doog a commencé li tax défi bi door a commencé mooy li ñu diglanteeg Sénégalais yi taalaa kulli xaal dañ ko def incha allah muy benn waaye ñëpp xam nañ ni li tax ñu mën ko def xeex bu rëy la ñaareel bi mooy nguur dafa ànd ak tantation nit dina taxaw tey bëgg laa laaj loo xam ne xelam xalaatul woon mu laaj la ko démb lan moo tax parce que jàpp na ni fi mu toll nii euh, war ngaa diis te fekk tey nga gën a oyof nag bu dee rek da nga yor te jaarale ko ci yoon moo tax liggéey bi dëgg-dëgg mu ngi door kon daje bi du rek pour ne ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di remercier parce que liggéey bi am na solo te production artistique dafa dafa mën na yóbbu mbir fu ko leneen mënul yóbbu dafa am solo kenn ku ne ci yéen mënul xam li mu jot produir moom ban impact la am ci liggéey bi parce que am na koo xam ne peut-être discours Ousmane Sonko sax du ko déglu wala su koy déglu du ci comprendre dara. waaye bu gisee kenn ci yéen taxaw jaareel ko ci beneen yoon ci lay gën a am attention pour déglu loolu dafa am solo ci liggéey bi moo tax seen contribution euh, apprécier nañ ko à sa juste valeur ñu leen ciy félicité bu baax parce que it kenn ku ne ci yéen bi muy jël engagement am amaana am na fu gënoon a tooy foofu su fa demoon poosam dina diis lool lool lool ci jamono joo xam ne ñun suñu dara leeruloon bëri na loo xam ne am na fii ñoo xam ne 2017 la ñu génne seen clip suñu premier élection législative kenn xamuñu woon maa ngi fàttaliku lan euh, euh, ñi way Sonko neexu lanam euh, dëggu Mike waaw ñoom ñoo njëkk a génne defe naa 2017 ak euh, beneen son boo xam ne Casamance la bu ñu daan def suñu campagne yor suñu pick boobu <laughs> yooyu lañ ci daan teg loolu yàgg na ba ñu génnee te jamono bi ñuy génnee man ak président Diomaye ñu ngi woon fii tëdd à côté daan après laa doon gis yu bëree bëree bëri bëri te xaw ma leen xamuñu ma loolu c'est très appréciable te xam naa ni benn bu nekk benn bu nekk ci li ñu produire am na impact bu mu am ci mbir mi kon ñu ngi leen ciy félicité bu baax waaye loolu mooy li gën a ne tuuti ci li tax ma ne nañu daje tey li tax ma ne nañu daje tey point de départ la ci la reprise des activités politiques ñu yaakaaroon ni léegi poste premier ministre tax na Sonko amatul jot politique ba ñu ne ci <laughs> comme on dit quand le chat ñu ne ci di cëppi cëppi dañu xam ni activité politique yi reprendre te xamante nañu nag waaw euh, xamante nañu bu baax bëgguma ci wax lu ëpp waaye nañu xam ni activité politique yi reprendre na. te daje bi mooy départ bi yeneen composante yépp nitu diine yi nga xam ne ñëpp gis nañ seen taxawaay ci télé yi ci rajo yi demee noonu bu soobee yàlla bu ñu jógee ci màggal gi naa leen dalal ñoom sax defe naa du lay def ci ak ñoom parce que artistes yi ñemewu ma seeni dànq mooy bañ dépense bi xaw a bëri euh, jeunesse bi yenn organisation de jeunesse yenn organisation féminine en tout cas toutes les composantes loolu bokkul ak les activités les actions sur le terrain parce que man nag tëju ci bureau yi taal clim man xaw ma ko de waaw lañ ci war a def nag dañ ko def jaadu woon na ci lii ñu traversé ñu ne la réew a ngi nii ak réew ni mu toll nga war koo jël ci condition xam ne néew na Sénégalais yi xam li xew waaye nañ ko xam ci fan yu néew soreetul waaw eh, teel a teel a jaru ko jaru ko léegi mbir yëpp leer bu soobee yàlla mais jaadu woon na ci conditions yi ñu jël un de temps ci gannaaw son excellence le président Bassirou Diomaye Faye daal di sëgg tuuti ci liggéeyu état bi parce que nit ci jamono ju ne danga war a xam lan mooy farata lan mooy sunna lan mooy af afdal bu farata jotee nga bokk fi dem def sunna xamal ni eh, amoo dara wala amoo lu bari ba ñu sénégalais dénkee réew mi la ñuy xaar ci ñun tey di ko xaar ci ñun dans deux ans di ko xaar ci ñun dans cinq ans mooy lan la ñu def ci réew mi loolu la sénégalais yi di xaar ñun te sénégalais yi nag ëpp nañu Pastef lañu indi ci pouvoir la ciy sympathisant moo ci ëpp li ciy partisan parce que noonu la politique di doxe dans tous les pays du monde bëri na ay sénégalais yoo xam ne faruñu ci benn parti jëluñu carte membre benn parti waaye dañuy seet d'une élection à une autre ñu seet lan moo leen doy li ëpp ci ñu voté pour ñun en deux mille vingt quatre boo moytul deux mille vingt neuf keneen la ñu voté lool. mille dix neuf keneen la ñu voté lool. mille dix keneen la ñu donc il faut pas qu'on se trompe de perception nañu xam ni lañ ñu dénk ëpp na parti politique. donc suñu dénkoon càmbaraguñu réew mi defaguñu état des lieux bi xamuñu lu baax ak lu bon xamuñu yàqu bi fan la toll ñu bàyyi loolu yépp nekk ci mbirum parti politique defe naa Sénégal yi nañ ñu gaaw a jëppi moo tax dégg nañ ñu ne ndax par essence sénégalais moo impatient ci ñaari weer ñetti weer nit mun a taxaw ne déggatuma gaay gisatuma gaay won nañ ñu gannaaw waa gars yi ci lan la ñu nekkoon ñu ngay xëy fajar ba deux heures du matin nekk ci li tax sénégalais yi wóoluñu ci lal la ñu nekkoon loolu doo ko fi bàyyi naan maa ngi accordé ay audience à militant suba ngoon bëgg lu neex militants yi du tax ñu def ko ndax nag bu ñu fàtte suñu contrat dans le parti politique mooy on a toujours été très clair avec les militants chaque chose en son temps kon jaadu woon na ci weer yooyu weesu te jeexagul sax ñu sëgg ci loolu yàlla may nañu ñu liggéey ci lu ama am solo dégg naa ñenn ñi naan amuñu programme ils ont vendu un rêve aux Sénégalais <laughs> dinañu gis ci fan yi ci ñetti temps nag ndax nun lu ñu mus a def dañ ko teg ci stratégie suñ leen puusalee benn te noonu la mës a doxee xanaa léeg-léeg nit ñee xaw a gàtt souvenir rek waaye ni ñu doxalee ba egsi ci élection ba yàlla jox ñu ko rek war ñu xam ni ñun duñu ay como te dañuy liggéey teg ko ci temps teg ko ci stratégie te noonu la ñuy yoree état bi moo tax ñu ngi ci temps évaluation état des lieux te bu ñu sottee ba ne Sénégalais yi lii fi ne ragal naa am na ñoo xam dootuñu génn ci réew mi de dootuñu jox ci mbedd mi moo tax teela wax ji jaru ko wala dañoo sentir ni mu ngay ñëw ñu gaawantu njëkkante tere yi takk seeni rajo waaye jaru ko dinañu wax sénégalais yi fait chiffre date bu nañ loolu benn temps la am na yeneen ñaari temps yu ci tegu loo xam ne je ne vais pas vendre la mèche waaye lépp ci semaine yi rek la ci semaine yi rek ma ko waxee nag xam naa xam naa ni am na xam na ñu dul nelaw tey <laughs> ndax xam nga man yàlla may na ma lu tuuti sama diggante gars duma leen déglu du leen seetaan toppatoo ma lu ñuy def waaye defe naa suñu xëyee soo bëggoon jot dégg naa sax samay ñàngal la ñuy wax léegi ma ne ah gars yi kon tiit nañu ñàngal soo ko moo leen dese <laughs> kon lépp dañ koy teg ci yoon ak ci temps parce que nag dañu xam suñu responsabilité de dañu xam suñu responsabilité gis nga fii nii waxal ma kii mu ñëw ubbil ma bureau bi bureau bi ci gannaaw gis nga fii li ma bëgg a dalal xelu militant yi mooy kenn gënuñoo xam lan mooy projet bi ndax ñoo ko togg ñoo ko sumb ñoo ko bind kon kenn gënuñu koo xam muy benn ñaareel bi kenn gënuñoo xam le sens de notre engagement kenn lay yàq projet bi mun na jóge ci ñëpp ñëpp ba mu des ñun ma dalal nit ñi ñu ànd ak tey ak dal ndax xam nañ fi ñu jëm leer na nañ te dinañ fa yegg bu soobee yàlla kon responsabilité bi ñu am ñun xam nañ ko te li ci gën a néew waaye moo ci li ci gën a fort en même temps mooy ay ndaw ay ndaw joxe nañ seen bakkan pour que Sénégal change dama xamul ndax nit ñi comprendre nañu sensu loolu su ma déggee ñu toog fii di wax ay waxu matériel ay waxu poste ay waxu dama naan nit ñi est-ce que comprendre nañ ils n'ont pas compris man amul jour bu may xëy te sama xel du dem ci loolu amul jour bu ma tëdd guddi te sama xel newul ci loolu amut waaw kon li ñuy def dimension bi mu nekk du dimension bu ñu xam ci politique dimension bi ñu xam ci politique fii Sénégal ñu newuñu ci dimension boobu président Diomaye chaque jour su dara amee wala ñu gis benn affaire affaire da koy naqari ci yàq-yàq yu ñu yàq réew mi da koy naqari et chaque fois la même phrase la may la may wax mu ne ma gis nga lii ñun nañu ko fàtte ça ñii ñan ñoo ci am 30 ans amul daanaka lan moo tax ñu dem. c'était pour que le Sénégal change président Diomaye loolu la may chaque fois mu ne ma est-ce que xam nga ni ay nit dee nañu nit ñi dañoo fàtte ni ay nit dee nañu pour réew mi changer dañu fàtte loolu moo tax ñun mënuñu ne fii gis nga les avantages yi ànd ak pouvoir yàlla métim xam na ni man gisuma ko parce que amul solo bu ñu tomboon ci loolu rek on a trahi ces la te bu boobaa nag la ñuy rendre compte suñ borom ah. parce que ban hommage la ñu mën a rendre xale yi mooy ñu ne ci cinq def nañ lii ci Sénégal ci dix ans def nañ lii ci Sénégal soppi coppite bi ñu doon wax ci Sénégal def nañ ko ba ñu gis ko c'est ça l'enjeu aujourd'hui te ci loolu la ñu nekk subaak ngoon guddeeg bëccëg moom il siège au gouvernement xam na li ñu wax te duñ ci am lu ñuy lam-lame El Malick Ndiaye bi il est ministre dans mon gouvernement bu ma xëyoon ñu ne ma jox nañ ko deux cent mille francs mu jël jour boobu il sera pas ministre dans le gouvernement bu ko jëlee midi midi et demi il ne sera plus ministre loolu amuñu ci luñ ciy sédd ak luñ ciy calculer ba tax la ñuy woo ñëpp mooy li ma démarré léegi liggéey baa ngi doog a door challenge bi dëgg mi ngi doog a commencé mu interpeller chacun d'entre nous yéen en tant que artiste ndax seen mission dafa jeex keroog bi ñu neen fal nañu président Bassirou Diomaye Faye ngeen dem aj seeni kooraane ñu xaar prochaine élection wala kenn ku ne ci yéen projet bi mu gëmoon ba tax mu tëju fenk li muy fenk wéy ko day ñëw ànd ak projet boobu accompagner ko kenn ku nekk nag ci domaine ba nga mëne loolu mooy questionnement bi il faut ñun ñëpp ñu nekk ci beneen niveau ci conception suñu relation ak la chose publique mais suñu conception suñu responsabilité ci projet bi kenn ku nekk la taxoon nga dugg ci gëm ko ba am loo ci def tey nga war a gën a takku nag ndax bu doxul suñu échec la ñun ñëpp ah dinañ ma ci tudd nañ ci tudd président Diomaye waaye dañ ne ah yow de yaa fi wéyoon tàgg gars yi ne suñ leen joxee réew mi gis nga fi mujj kenn ku ne suñu responsabilité la moo tax tey lañu war a gën a takku ci naka. wax naa leen ni ay temps la euh, gars yi dañuy wax état de grâce état de grâce c'est pour les faiblards ñun soxlawuñu état de grace état de grace c'est pour les faiblards ñun ba ñuy nekk parti politique opposition amuñu état de grâce dañoo juddu rek ñu daal suñu kaw ñun ñooy parti boo xam ne su doon xale la. dafa juddu rek dox jàngul toog jàngul raam parti bu dëgg dudd 2014 2015 ñu dal sa kaw 2016 ñu dàq la sa liggéey noonu noonu noonu ba fi mujj ñun soxlawuñu état de grâce ñiy wax ay état de grâce état de grâce ja va bientôt se terminer déedéet na bar kuy opposé wu rek génnal ñun soxlawuñu état de grâce loolu mbirum mbirum tapet la <laughs> ñun xamuñu loolu ñun cooki lañu xam dans le bon sens du terme nag du ñu tooñ kenn kenn mësuñoo gis ñu tooñ waaye ku ñu tooñ fekkuñu fi loolu lañu xam te réew mi noonu lañ koy yore mooy ku bëgg a opposé wu bu mënoon nga commencé sax balaa prestation de serment président Diomaye ndax ñoom seeni opposition yëngaluñu opposition saaga meeg egg yu dem ñun yooyu yëngaluñu opposition boo xam suba ba ngoon jot sa yaakaar yëpp mooy kañ la problème di am diggante Diomaye ak Sonko ñooñu yëngaluñ ñun dañuy tëdd nelaw de ces deux opposition boo xam ne ña ñay ñay ténor yi kenn ñemewu cee génn wax waaye da ngay dem fay nit ne ko jógal wax ñooñu nag ñooy les agneaux du sacrifice ndax ñi ñuy naan ñi ñuy fay naan lañ jóg leen wax lañ leen xamee mooy xaste ak saaga ah, nañu xaste nañu saaga ah, et dama jàpp ni ñenn ñi dañoo dañoo gëm a <laughs> dañoo gëmagul nekkatu nekk ñoom nekkatuñu pouvoir quoi topp ci nit di saaga di saaga di saaga mu muñ ba ñëw ñu jox ko doole nga ne damay saaga ah aywa te kuñ ci ne ñuuj nag doo gis gars yi avocat sax doo ko gis gars yi mënuñoo xeex de ñii li ma ne benn lacrymogène la gars yi xaaj ñeent sànni leen ñu soj ñoom ñëpp mbir maa ngi nii nun amuñu problème na métti rek mais état de droit la ñu wax ku ñëw ne d'accord mag agriculture bi niñ ko doxalee wala napp gi wala càmm gi wala jàpp naa Ousmane Sonko avec des preuves jël na xaalisu réew mi c'est ton plein droit loolu amul benn problème mais xëy rek topp ci ay nit nekk ci seen der nekk seen vie privée dugg seen njaboot lu bon lu ne nga wax ko waxoon naa leen ko grand théâtre dégguñu am na ñu mos nañu continuer noonu rek loolu dina jeex ci réew mi de wala dem fay nit ne ko bindal ma El yi laa bëgg nga xasal ma ko wala nga détruire ko loolu dina jeex ci réew mi parce que dafa dul yoon nañu waxante dëgg tey il ñu comprendre yi nag bañ ko doon def mu yomb ci ñoom ndax ñoo yoroon lenge yi am ñu leen boot ne leen defal loolu soppiku na kenn du fi instrumentaliser kenn mais dinañu def politique opposé wu dans le respect mutuel loolu moom dina am débat d'idées ku ci wóolu sax xam-xam man de suis prêt à tenir des débats avec tout le monde débat sur les politiques publiques sur l'État sur nos ressources naturelles sur nos finances publiques sur leneen ak leneen ku bëgg ñu débat loolu amul problème mais yenn yi moom dootul mun a am ci réew mi ba tax nag ñun soxlawuñu état de grâce ndax xam nañ lañ yor xam nañ fi ñu jëm tekk tekkaaral bii ngeen gisoon tekkiwul faiblesse tekkiwul dara ci étape yi di ñëw nag yu bëri dina ci am te composante bu nekk il faut mu jouer référentiel bu bees bi nga xam ne moom la ñuy tab togg muy le nu le nouveau référentiel des politiques publiques ndax PSE ñun mosu ñoo d'accord ak PSE yàgg koo critiqué PSE pare nañu seen Sénégal pare na ak PSE ñu ngi naan gars amuñu programme ñoom liñ doon liggéey ci ñaari at ñun dañ koo liggéey ci juróomi weer ndax entre phase u dama bëgg yooyu mu leer parce que dañuy essayer intoxique Sénégalais yi avec une mauvaise foi extraordinaire réew moo dem ci àdduna candidats yi dañuy ñëw présenter un programme mais bu yàlla defee nga gagné programme boobu da koy opérationnaliser programme bi nga def dafa génne les grands axes de ta vision mais boo demee ba yor leng réew mi ca ngay opérationnaliser nag def beneen document bu gën a détaillé boo xam ne. day méngóog les données les chiffres que tu ne pouvais pas avoir ba ngay nekk ci opposition mais bu collé ak sa programme yéen a ngi fàttali ko président Abdoulaye bi ñu ko fale programme soppi la andi woon il lui a fallu combien d'années pour génne la stratégie de croissance accélérée trois ou quatre ans je ne ki fi jóge président Macky Sall yoonu yokkute lañ ko fale woon il a fallu deux ans pour mu génne. PSE bi te dafa dem fay 3 milliards un cabinet étranger mu defal ko ko ñun fay ñu dërëm avec l' expertise locale en 4 mois on on va vous sortir un document d' ñu ne ci télé yeeg rajo yi le projet n'existe pas léppi léppi léppi léppi bu ñu génnee document bi dans les prochains ci anam boo xam ne kenn ku ne ci yéen bu ko gisee dina xam ndax lii dina changer Sénégal du ko changer référentiel boobu nag bu ñu ko génnee la liggéey bi di lancé wu dëgg-dëgg te liggéey boobu dafa laaj vulgarisation dafa laaj communication dafa laaj sensibilisation ñu koy def nag ak toutes les composantes civisme service civique citoyenneté communication yaa un bureau spécialement à la primature pour ça ak yeneen ak yeneen kon kan moo gën a yomb kan moo gën a euh, am facilité ci tasaare message wala vulgariser qu'un artiste amul kon seen mission jeexagul mu ngi doog a commencé et c'est pourquoi et un artiste de qualité parce que ñi ma fi gis ñëpp am nañu niveau téye document bi liir ko comprendre ko jukki ci benn fànn ne lii bëgg naa ci waxtaan ak telle catégorie de la société ñi fi nekk ñëpp ñëpp waxuma waxu transport <laughs> donc noonu la ñuy xaar ci suñu nee dañoo bëgg qu'on continue ensemble l'aventure l'aventure ne s'est pas arrêtée le 24 mars pour les uns elle ne s'arrêtera pas d'ici des décennies bu soobee yàlla il faut qu'on continue ensemble cette aventure te kenn ku nekk ñu xool nuñ ko ci impliqué nu mu ciy gisee boppam doon un acteur de transformation structurelle bi ñu wax fii ci réew mi joxe sa participation wala continuer di joxe sa participation c'est pourquoi euh, mënuñu am une vision très réductrice ñi fi waroon teew war nañoo ëpp ndax am na d'autres types d'artistes wax naa ko El Malick yaa naa ñoo xam ne par la peinture ils ont beaucoup travaillé à vulgariser ce qu'on est train de faire am na ñoo xam ne par d'autres moyens et on va continuer à élargir keroog bi may installer le comité pour euh, célébration quarante quatre nga xam ne c'est un c'est une obligation mémorielle pour nous mënuñu continuer di subir l'histoire même quand elle nous a été par le sang ba pare duñu rétablir la vérité historique ba suñuy doom ak suñuy sët xam li fi xewoon mun a jël matuwaay pour mu bañ a amati mais biñ ci wax posé nañu débat boobu la rôle des artistes ci loolu le rôle des artistes tey artistes yi fi nekk peut-être ñoom la ñu taamu parce que je voulais à ci sama tur ak ci turu président Diomaye vous remercier mais li may wax nii ëmb na artistes yëpp nag ça n'exclut aucun artiste aucun artiste même ku ne man je jeune je part la politique politique intéressé wu il faut que ñu ñu jàng séparer ñaar mun nga bañ a politique mais gis ni lii baax na ci réew mi en tant que citoyen nga ne lii dama ciy dugal sama loxo loolu bokkul ak politique jëndoo carte de membre demoo ci meeting ànd ak mais lii état bi na koo bëgg a def par exemple ci mbay mi fexe ba remobiliser sénégalais autour de l' agriculture nga ne man artiste la te am naa ñu may déglu am naa sama public bëgg naa. jàpp ci lii parce que lii su doxee réew mi naat ça ça n'a pas de rapport avec la politique c'est pas un engagement politique mais les gens font souvent l'amalgame noonu nga xam ne imam biy def prêche am wala prêtre biy def moom jàpp na ni lii baax na suñ ko defee mu ne tey dinaa xutba ci retour à l'agriculture wax ak ndaw ñi mais loolu est-ce pour autant que il est devenu un partisan de Pastef non parce que am na loo xam ne bu doxee ci programme bi Sénégal yëpp la doxal duñ fi defar hôpital de dernière génération ñu ne waa Pastef rek a fiy faju ñëpp a ciy faju tali yi bu baaxee duñ ne waa Pastef ñoo ciy dugg ñoom kese leneen ak leneen s'il y a de l'emploi les gens les entreprises recrutent indépendamment de la coloration politique moo tax ñun ñëpp suñu préoccupation mu war a doon na réew mi dox kon yeneen phase yaa ngi ñëw débat yi ñuy posé yëpp am na ñu dem ba bugg a jàllale ci bopp nit ñi sax que way on va passer l'éponge impunité et cetera loolu yëpp am mais lu nekk ak taawam rek lu nekk ak taawam bi ma recevoir fii les les anciens détenus defe naa bi ñu génnee néew na lu ñu waxati ci mbir mi ndax am na lu ma leen wax ci biir néeg te duma ko wax ci biti ndax stratégie du lu ñuy wasaare ci mbedd mi mais ay nit su ngeen àndee nga ànd ak nit démb ak barki démb wóolu ko mu doy la ci njiit di def ngay gis bu la nee toogal ànd ak dal toogal nga may ko su toogee nag suñu toogoon un an deux ans gisuñu dara nit ñi mën nañ ne ah ñun de xamatuñu mais quelque semaine jarul yëngatu kon ci gàttal ah gudd na ba pare sax mais solos waxtaan bi entre autres lii la woon te nii ma ko defee génn noonu lañ koy nee def am na yoo xam ne sax damay déplacé wu ci terrain bi cible des quartiers ou des villes dem waxtaan ak nit ñi portage la boo xam ne mënul ñàkk parce que dans notre conception xam ngeen Sénégal lu ko mës a gàllankoor fii ñi fi toog kan ci yéen moo mun a génneel ñaari axe PSE plan Sénégal émergent ñaari axe yow maîtriser nga yow mën a wax fii est-ce que am na même intellectuel yi ñu naan intellectuel lañu très peu connaissent sa document loolu nag mooy erreur gouvernance ku ñu fal nga tëju sa pale tëju say bureau taal say clim woo say expert ñu defar sa document nga ne yaa ngi koy doxal te ñi war a porter document bi xamuñu ko ñi war a porter document bi xamuñu ko ñun suñu nee dañuy defar on va présenter bientôt au Sénégalais le plan la, la vision Sénégal 2050 xam ngeen suñu suñu yitte mooy lan ñu dem ba sénégalais ki yor taxiem di dawal boo ko laajee ci vision 2050 su xamul lépp it dina mun a jukkil dara lu jëm ci secteur am peut-être ne la ah lii de ne nañ dañ koy def te nii lañ ko bugg a defee te suñ ko defee dina baax parce que kooku bu xamee loolu dina la mun a gungi ku xamul foo jëm mun la gunge donc le portage du projet la réalisation la réussite va dépendre ci niveau appropriation populaire bi document bu ñu ko génnee sénégalais war nañu xam ñii fan lañu jëm fan la ñu bëgg a yóbbu dans cinq ans dans dix ans dans quinze ans dans vingt ans loolu il faut que sénégalais xam ko C'est extrêmement important. Ça conditionne la conduite du changement et la réussite dans la réalisation. kon loolu du liggéey bu ndaw artistes yi am nañ ci cër bu ñu paree yëpp dañuy def ay atelier atelier dem tëju quelque jour quelque part ñu ne tey artistes yi la ñu ñëw génne programme bi experts yi def exposé nit ñi posé seen question ngeen comprendre lii lan la bu ngeen koy restituer dina yomb noonu lañ koy defee ak beneen segment beneen segment beneen segment kon ñun xam nañ fi ñu jëm te dama koy wax toujours gannaaw yàlla gannaaw yàlla gisuma lu ñu mën a tere réussir incha allah ndax réew boo amee yéene ci réew mi bëgg réew mi jub ak jubal loxo yi set vision bi leer programme bi dëgër kon delluwaat gërëm leen bu baax ne nag dama inverse affaire bi parce que bi may ñëw dama damay ubbi rek sànni ci débat bi ne leen kenn ku ne dama bëgg ma ngeen wax ma naka ngeen gisee affaire bi c'était pour tester un peu les sensibilités voir aussi le niveau de compréhension ak l'analyse que les gens se font de la situation euh, fi ñu toll nii mais suñu commencé rek taxaw bi day métti euh, teewul dinañu delloo kàddu gi déglu leen ci seen i préoccupation seen analyse aussi am na solo seen euh, gis-gis ci mbir mi ak seen i suggestion seen i recommandation parce que yéen a nekk en contact ak ay nit yoo xam ne man nekkuma ak ñoom en contact président boo jam Diomaye nekkul ak ñoom en contact te loolu dafa am solo aussi ci liggéey bi merci beaucoup kon ma bàyyi El Malick